remercier ci liggéey bi nga xam ne yaa ngi koy def ci lu baax Antoine ñu ngi lay remercier ci liggéey bi nga xam ne yaa ngi koy def ci lu baax. di di encouragé xale yi léeg damay seetaan ay vidéo am TikTok muy muy woo xale yi di waxtaan ak ñoom parce que ñun loolu lañ soxla ñun ñii di wax en tant que porte de voix loolu lañ soxla xale yi nga xam ne dañ cee nekk te xamuñu yàlla na yàlla jubbanti seen xel yi ñu fexe xam lu ñuy xeex fexe xam lu ñuy maîtriser te loolu rek moo ci am solo. ndax d'accord nga ak waa waa waa waa nag euh, nervi yi sax amoon seet gars yi ñooy yoon nervi nervi yi sax amoon seet gars yi ñooy yoon nervi yi. y a yoo xamante ni xam nga. il se tourne ñooñu dañoo yor seen carte de liggéey. ñooñu dañoo yor seen carte de liggéey. te gars yi ñoo ne ñoom ñoo naan nervi lañu. du ay nervi du ay nervi man xam naa ci ay mbër yoo xamante ne peut seen seen carrière demeewul noonu. mais dañoo am seen carte sécurité am nañu ay carte ki professionnelle war na garde rapproche wala affaire yu demee noonu ñun du ñuy nervi mais xam nga léegi Sénégal mooy manip. Balla Gaye nee ñun lay ñaanal ñun patriotes yi nga xamante ne dañuy xeex te xamuñu lu ñuy xeex yàlla nañu yàlla jubanti xanaa tey ñàkk jom sax waaru na xanaa tey rus gàcce sax am na gàcce tey xanaa tey rus sax tey rus na. Balla Gaye yow tuuru ñàkk jom sax dafa tuuti ci yow wax parce que man yéen xaw ma seen jom yi nga xam da ngeen koo ngëbaale seen ngemb yi sànni ko ci mbalit ba xaw ma lan fan ngi fan ngeen wékk seen jom yi daal man loolu comprendre ma ko. gis nga seen euh, Macky Sall bi ngeen di wax ni que mi ngi liggéey ki jël xaalis bu bëri tuur leen ko pour ngeen noppi pour ngeen gëmba gumba taxlu luñ la laaj nga ne yow loolu gisoo ko loolu maîtriser woo ko déglu ko lu mu wax. gis na ne mbëri bi yon bañ nañu ñu len di recruter di len duggal ci politique bi ñuy ñaawal deru lamb c'est très important il faut ñu ñu bañ ku len di jël di fay xaliss pour ñu naan mbër yi ñoo def li mbër yi ñoo def la lolu rafetlu naa ko ngi di encourager parce que mbir mi du may ni fukki million wala ñaar fukki million ñu ñu ci ñaawu xamna ni dof nga jango sa bobbi ndox neeku ci yak say morom Macky Sall nee na dafa jël xaalis fay leen ko parce que yéen ay mbaam ngeen pour ngeen salteel tilimal deru làmb yéen a ñàkk jom yéen a ñàkk jom bàll yow sax laay wax yow ñaata yoon la say fant say fant sa jooy xëm ndax yow ñaata yoon la say fan si dem nga daan ñu dem géej waaye ñu violé leen fa ñii ñu sàcc leen ñii ñu def leen lu kenn xamul te yéen loolu yëpp ci yéen la seen écurie la yéenay daan ba pare ëlbatiku di agressé nit ñi tey loolu yëpp feeñ na gis nga Macky Sall mbaam la leen jàppee jàppeewu leen sax ay nit parce que xam xam na ne xaalis ngeen di jaamu bala nga yaa mën a duul nga ne Antoine ñàkk jom mi ngi liggéey Antoine ñàkk jom lan la liggéey ci dëkk bi maa xam moo tax xamoon nit ñi lan la ñuy ñaxtu xam nga ko sax dangaa teg sa danga cee teg sa tànk na xaalis loo dof dof dof ndax xale yi sax xam nañ lan la ñuy xeex injustice bi ñuy xeex ci Sénégal xale yi nekk ci kër yi am deux ans sax xam nañ la la ñuy xeex yow yaa mës a dégg Antoine ñàkk jom fu mu woowee jeune ne ko lan moo la metti ci Sénégal yow yaa ko mës a dégg sa kanam gu rëy sa tun gu rëy ngeen dem ci yéen yéen dëggantaanu mbër yi nekk ci euh, dëggantaanu mbëri xanaa tey sax am nañ gàcce ci yéen Balla Gaye yaa ñàkk jom yaa ñàkk jom nga ne da ngeen kontaan ci Antoine Félix bien sûr que da kontaan ci moom parce que ci Sall dafa leen woo parce que xam na ne seen écurie yi dafa fees ay agresseur ay bandi ay raykatu nit moo tax mu woo leen pour ngeen recruter ko yéen seen ñi nekk seen écurie yi pour ngeen indi leen ñu former leen pour ñu nekk ay nervi loolu la wala dangaa yaakaar ne ñun dañoo dof ne yow wala dangaa jàpp ne xam nga jàngu lu ko waaye jëndee jar na ko parce que dala dof nga yaakaar ne ñëpp a dof Macky Sall loolu la leen di doyee pion la leen di doyee gis nga Macky Sall suba day wàcc de yéenay des ak population bi te gis nga seen promoteur yooyu noonu ngeen yaakaar ni que ñoom ñoo leen di may non non seen pro seen promoteur joxuñu leen xaalis de ndax seen promoteur yooyu noonu dañuy dem banque lépp fa xaalis. suñu tëjee jour combat bi ñun supporters yi ñooy rembourser xaalis boobu noonu boo dofee jàngoo ma xamal la seen promoteur yi duñ ci cent franc ku ci nekk milliardaire ñun supporters yi ñoo tax parce que bu ñu tëjee combat kenn demul jënd billet buñ boo leen xëyee di ngeen gàddu seen i daal di jooy dof nga moo tax yéen doog mën xam mais gis nga xaalis gis nga Macky Sall mi 10 millions ak 20 millions yum mu leen di jël di leen ko sanni du dara ci mom ndaxte xas bi day naaw comme ngelaw ndax lewul ñun population bi suñu xaalis la te kontaanuñu si yéen barke sëriñ Babacar ci day day naaw ni ngelaw te lii boo leen ko gisul boo leen ko gisul Balla Balla li nga ne ni génn ci lii du sa arrangement de yow Balla yow xam nga yàlla moom du may lépp yàlla du la may doole pare may la xel dalay may doole doo am xel wala nga ne néew doole am xel yow na bala yàlla laa may doole pare may amoo xel démb dangaa wadd xam nga wadd dafa mel ni ñoo jël garabu mango rek di ko di ko buumax ni la mango yëpp di puti puti yéen fu mu toll leen wax lu saf nit ñi parce que da nga jaay seen ngor yow ni nga ne nii génn ci yow bala yow mënoo wax benn amoo xel sa lépp ñëwut donc li nga ne nii génn ci moo gën suñ la waxee si Antoine ñàkk jom nga ne waaw mi ngi liggéey waaw Macky Sall ngi liggéey Macky su ko dee liggéey parce que suñu alal la man lu ngi liggéey dafa war a liggéey parce jox dañ ko ko dénk dafa war a liggéey arrêté leen dama toog moo gën si yow ñàkk nga xorom trop di wax di seerewu noonu xam nga li ngay wax dëggul si yow yaa ko gën a xam parce que millions yi ñu leen jox moo tax foog ngeen wax waaye di ngeen trop cim salaam salaam sama gars yi gars yi seetaan leen vidéo Balla Gaye bi ngeen ñu dellu si waat. Euh, Antoine euh, Antoine Diome mu ngi def liggéey bu am solo ci Sénégal. waaw parce que maa ngi koy félicité maa ngi koy maa ngi koy maa ngi koy félicité bu baax en tant que moom gis nañ liggéey bi daal moom moom farloon farlu na ci quoi farlu na ci farlu na ci bu baax parce que mu ngi def ay devoir yoo xam ne pour sécurité réew mi pour jàmm réew mi te loolu moom importance tamit nit amul milliard boo amul jàmm amul njëriñ bo amé tay yépp non coono nga tëdd ci milliard nga tëdd feebar ba té mëno ko lek bañ njëg na man na baña am dara na am jamm di xey di gis sumay waajur ak Sénégal bi numu amé jamm ak samay am di jamm samay mbokk ma baña am dara na xey wara lek lekk rek amul problème. ñom liñ gëm moy jamm du am fu dëgg am est-ce que gëm nga ni jamm mën na am fu dëgg am. non néna luma xamul duma ci dugg parce que man xawma xawma ba xam jamm fu amna fu dëgg amul yoyu maîtriser wu ma ko du ma ci dugg. non dafa sensible parce que nit lay wax. ñu wër non man dund but ba sama papa nag mosu toog moom mu ne ma Amar man dëkk ba laa jógee ñëw fii Sénégal kenn mosuma Casamance la jógee ñëw mu ne man dund naa ba ni ma nekkee mag ba yàlla dogal tey ma am leen kenn mosuma woo police ma. naka la yenn chaîne yi di dem si Balla gay 2 di jox micro nan ko waxal sa xalaat ay Balla gay 2 ko xamne ne na fi heure bu ne di fi beure def presque yaramu nen ci mbedd bi bir bi di lang pour mu am xaliss koku tepp un bon jour ne ne yi ne len non des len si pauvreté ne mais ne am len jamm quoi mais ban deuk nga mo nekk moo pauvre ba pare nga fekk fa jamm na dem si favela su Brésil yi mu xol ñoy dëkk ñoy endroit yi gën a dangereux ci kaw suuf taman Afrique du Sud ghetto Afrique du Sud yi mooy endroit yi gën a dangereux si àdduna bi Sénégal nag du question du ghetto ngay dem Sénégal yëpp pauvre yow nga ne nit ñi nañ toog jàmm am waaye gal Balla Gaye yaa gore di yow yow doo gor de ba pare li ma si gën a metti mooy des gens comme toi la ñuy tànn micro ñuy wax seen xalaat dans des pays qui se dit intelligent comme le Sénégal non vraiment Sénégal amu leen chance Nous, ñun amuñ chance